fii ci point de chute bi nga xam ne fii la tuyau yi ñu daan wax tuyau lac de guerre yi ñu fi defoon en 2004 2005 tuyau bi mi ngi mooy fii lay déversoir bi mi ngi jógee 12 très unité 12 unité 13 unité 14 romb 15 ñëw ba 16 mi ngi nii fii lay déversé woo léegi dañ fi defoon benn système de drainage mu dem ci dex gi ci suñu gannaaw mais léegi nag le problème mooy manque d'entretien bobu fi nekkoon depuis bobu ba léegi parce que entretien bu normal bu sérieux dañ ko ci deful de telle sorte que lepp day bouché avant-hier débouché nañ ko mais ndox bi doon genn moy ndox mi nekkoon trop-plein bi nekkoon ci bir bir tuyaux yi nak bi nga xamé né débouché nañ ko ba poclin bi ñëw na ba débouché ko mais buntu bi la débouché té li genn aussi dafa ñëw dem duggu quartier Alioune Ndiaye parce que yoon wam daan jaar fatt na léegi le problème loolu yëpp li fi indi nak moy le, le, le, on, nous a, nous a endormis, on nous a dévêtus pour, pour revêtir euh, 3 bi nek euh, Parce que phase 2 bi fi le le maire nous a endormis, le maire bi mo tok mu wax phase 2 bi ak phase 3 bi dañ koy jumeler mu nek ben ñi def ko fofu Djakhay euh, ak ak euh, Aladji Paté. Alors que liñ waxone yeb defu ci dara. parce que dafa bu ko def yooyu bu ko defee foofu nun li ñuy defal mooy dañuy indil euh, des motopompes avec des des de des des des comment des raccordements xaw ma anaconda xaw ma anaconda xaw ma vipère mais gisuñu dara on n'a pas vu anaconda on n'a pas vu bois on n'a rien vu waaw léegi nag loolu nag lañ defut defuñ ci dara lañ defut ndox mi bu ñëwee nag def li mu war a def mais système boobu ñuy def nax bi ñu nax ba jël phase 2 bi phase 3 bi yëpp boole ko phase 3 sax amul woon. la réalité moi, phase 3 on n'a jamais parlé de phase 3 La phase 1 on est en évaluation après l'évaluation on attaque la phase 2 C'est ils étaient en train d'évaluer la phase 1 phase 1 il y a 7 ans parce que le manque de série des entreprises sénégalaises Les sénégalais ils ont fait plus de 5 ans Ils ont fait ñu chinois chinois en temps record les gens ne dañuy évaluer phase de vie. Nous nañ marqué nañ fu mais bi le bon je dis que c'est la responsabilité du maire parce que ñom ñoo jël mom dem mom mo doon wax mom dem jël ko def ko jaxase phase yi dem phase d'urgence seulement phase d'urgence phase d'urgence la même chose dal ba le problème il est là tu ne ci waaw léegi nag ah ñu ngi daw fu nekk ñu ngi daw di dem yal na leen yàlla yokk sutura parce que bu buñ réussir nun ñuy féex buñ réussir ñu sonn rek waaw dana ci def suñ kant lay kattan mais daal suñ problème principal mooy kii bi parce que gis nga boo paasee mbarax mi fi am na benn benn néeg bu nekk foofu système boobu lañ fi njëkkoon wala bëggoon a def def nañ benn benn chambrette fii unité 16 def ko unité 11 def ko unité 12 ingénieur yooyu ñu dañ ne woon dañuy def un système de drainage dañuy pomper forage problème de bu bu tawee ñi pompe euh, napp bi wàcc ndoxu taw bi ñëw jaar fa mu war a jaar dem ñu dem ba mu yàgg ñu bàyyi loolu lekk xaalis boobu loolu rek la woon problème bi problème politique la woon kooku c'était en en deux mille deux mille trois deux mille trois waaw léegi suñ problème daal mi ngi noonu waaw incha allah ñu ngi ci góorgóorlu nag ministre bi ñëw na fi préfet ñëw na fi su préfet ñëw na fi on a des promesses te sapeurs yi ñu ngi dem ak ñëw. mais action daal la ñuy xaar actuellement incha allah jërëjëf.